asalaamaaleykum suñu mbokk internet ki wolo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baaxa baax ginaaw ki nga xamne modi son excellence monsieur Bassir Diomaye Faye daal di def li nga xamne modi mooy réduction des prix ci li jëm ci li nga xamne modi denrées alimentaires ba taxna nak nag ñun waa wolo TV ñu daal di genn ah, fas yéene ak ñi nga xamne modi askan gi laajte leen seen xalaat par rapport ci loolu surtout nak boulangerie légui légui lay doon ñu daal di leen ko faram fàccal. affaire wàññeeku prix bi client yi ñu bari ñu ko doon xaar vu que dernier semaine yi passé yëpp. chaque jour nga gis benn client bu ñëw naan leen ak ah, plus bi effectif na wala effectif c'est-à-dire 160 ñu waxoon ak yooyu noonu depuis lors déggu si dara ñun ñi nekk comme caissier si boulanger waxuñu dara ba démb ni ñu ñuy soog a wax lii nouvelle moom mooy wàññi nañ ko à 150 pour cent 150 francs au lieu de 160 pour cent en fait ñun boulanger man mii de en tant que caissier boulanger nekk si boîte bi di jaay nii loolu mun ma si sore puisque patron bi moo si patron yi ñoom ñoo la mën a wax fi ñu egg niveau bu ñu yegg ak mblan comment dirais-je autorité yooyu noonu ñun man mii tax dama ko yëg tardivement démb la démb avant may tëdd lañ ñëw ne ma demee incha allah da ngeen di commencé da ngeen di wàcc mburu ba 150 pour cent loolu kese laa si am pour l'instant bi man en tant que citoyen sénégalais li ma gën a ñor ci wàññi bi ci li ma li nga xam ne moom ma waroon na man gën a ñoroon ci wàññi bi moo doon wàññeegum déjà location bi man moy sama souhait bon dès l'instant que ñi fi ñëw ñu ngi ci commencement bi duñ def lu apprécier li ñu commencer, et que voilà donc euh, alhamdoulillah rek lañu mëna wax quoi d'autant plus que wàññi nañ dañuy ñaan yalla ñi nga xamné ñom ñoom ñoo yeyoo loolu alors ñu jema a def tuuba li nga xamné ne ñoon la leen euh, askan bi laaj ñu def ko surtout muy kat yi donc loolu rek la dimbali askan yi dimbali sen bop dimbali ñu loolu la ñun ñep ñu bokko ma daan jëndee mom la jëndee quand même tay ci lënd bi xawma nak xeyna bof dinañ ko changer mais pour l'instant li ma doon jëndee laa jëndee. mom ma ngi koy rafetlu bu baaxa baax ndax bo xolé pratiquement ñu sénégalais yëpp mburu la ñuy dundee quoi bu ñu ndéki mburu la bu ñu reer sax mburu la motax tax même yenn lii nii def mburu la affaire lañ koy défaré motax mais ma ngi koy gis li ma ngi koy rafetlu bu baaxa baax surtout pour élèves yi daa élèves bo xam ñu bëri amuñ temps ndéké seen kër si mbedd bi la ñuy ndekkee moo léegi ñu ñu wàññi numéro bi na arrangé même élèves yi loolu lu baax baax maa ngi koy rafetlu. tey jii li mu ko wàññi lu baax la parce que tey jii nii euh, régime beneen ba mu ñëwee woon métti woon na trop waaw mburu bi dafa cheroon lu ne cheroon mais xam nga rek damay lancé message sénégalais yi maanaam tey jii nii Diomaye ñu ñëpp suñu président la moo xam ku ko votel moo xam ku ko votel waaw bu échoué ñu ñëpp ñooy échoué waaw bu bu bu réussir aussi ñu ñëpp réussir léegi nag ñoo ñoo ñoo ngi koy ñoo koy ñoo ngi koy naan daal monsieur Diomaye Euh, merci si lu mu def wàññi muru bi wàññi loolu yëpp ñoo ngi ko si sant. maa ngi leen di conseillé moom bu ñu ko def quoi ndax loolu président bee ko digaale quoi président moo ko sant te loolu si yoon dañ a def ndax président bi mooy suñu kilifa moom la a topp ndax instant ñoom bu ñu bu leen woowante dañuy yokk mburu bi 250 da leen seen ko war a wàññi ndax loolu yoon waaw bu ñu ko wàññiwul nag ñoo ngi si injustice nag waaw loolu laa gis. mais tamit am na ñoo xamante ne nag du ñu wàññi mburu bi ah loolu nag dañoo war a xam ne maanaam lu président digle

day gis ne souvent dinañ wàññi ñëpp ànd ci mais des fois boo ñëwee ci bitik mu jaay la da nga naan ay ñaar dërëm ak juróomi dërëm du la tax a nekk foofu di xuloo des fois sax danga leen koy may par par weccat waxuma laak nag ñu la koy jaay mu nekk sa client boo miin yàgg a jëndee foofu lu mu la wax rek da nga koy gëm avancer quoi ñun sénégalais amuñu problème boobu ñiy jaay kay ñoo war a am xalaat ne lii kat avant ñu ngi ci doon bénéficié wu tey bu dara ñëwee c'est pour tout le monde ñoom ñooñu dañuy jënd leneen yaa ngi dégg ñeneen ñi di ñëw di jënd ci ñoom

parfaitement doon na loo xam ne lu arrangé client yi te ñu ngi ko doon xaar tamit doon nouvelle bu neex trop si ñoom puisque tey ku ñëw nga dellu mu jox la 525 nga ne ko noonu wàññi nañ comment dire wàññi nañ mbir ba 50 pour cent day kontaan ba yow si boobu sax da lay félicité alors que dafa ñëw wàcc subitement si yow nag d' après ñu bëri magnifié nañ ko macha allah doon loo xam ne client yi doon nañ ko xaar ñun tamit di ko rafetlu puisque askan bi tamit. tolloon toll nañ si moment boobu nga xam ne wàññi rek lañ gisoon te loolu lañ jégle woon ak gouvernement bi ñu expliqué ñu kan nag ah, di ko sant di ko gërëm di ko ñaan di ko wax ne ko na jëm ci kanam rek. bu mu gestu ginnaawam bu mu xool ñi koy xarab. bu mu xool ñi koy xoolee bëtu nangam yàlla bu la xasee jiital bul bañ ku wax sa ginnaaw waaw baatu ginnaaw gannaaw gën gi mindee foo ko amoon yaakaar naa ñun ñi tuuti ñii waruñu ko bañal sunu bopp. kon na jëm ci kanam te xam ne li mu digoon Sénégalais yi ñu ngi toog di ko xaar te am nañ yaakaar ci moom yaakaar boobu yàlla na bu ko yàlla tas waa ñun ñëpp ñu bokk ko

molu ngali konton kolen na jali yasilo iye kamben kabo dum bolodi a fɔ molu ŋali kɔntɔn kolen na jaliya silola i ye kanbɛn ka fɔ dumunɲa bolo di